asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi rawatina kon euh, mbokki téléspectateur yu Jazboul Mouride xam ngeen ni ñu ngi fii kon si pencum Daaru Xafoor Daaru Xafoor nag suñ ko waxee xel yëpp dem si maam Salihu Fall kër Serigne Ndam Sam euh, Ndam Fall Salihu mi nga xëy ne moom mooy xalifa maam Salihu Fall di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér xam ngeen ni lépp rek si euh, ñoom it gaaw yi niñ siy taxawoo. di bis yi nga xamante ni ñoom la ñu leen féeta leen ngir nag ñu si togg ndogu yi di yóbbu kër Serigne Touba Xaadim Rasul fii kon si Daaru Xafoor yóbbu ko si dëkk bu sell ba di Touba Serigne Mamour Ndaw salaamaaleykum mel na ni kon nu ngi fii tey si Daaru Xafoor. waaw jërëjëf sëñ Alioune Badara Daaru Xafoor nag muy dëkk boo xam ne dëkku maam Saliou Fall la maam Saliou Fall di rakki maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine ñu bokk wayjuru góor waaye bokk tim wayjuru jigéen mu jëloon léppam jox maam Cheikh Ibrahima Fall waaye tamit topp ko nekkoon ak moom ba ni nga xamante ne bii ni la amee ndigalal maam Cheikh Ibrahima Fall sanc fii ci Daaru Xafoor fii nag mboolem ah, bi nga xam ne maam Saliou bàyyi ko na fi mboolem njabootam gi nga xam ne ñoo fi nekkoon ah, ñëpp kenn ku ci nekk rek ah, ni nga xam ne noonu la ko maam Saliou doon defee fii noonu nga koy defee ci weeru koor muy di togg ay ndogu di ko yóbbu kër Serigne Touba waaye di ko jox tamit tam taalibe yi nga xam ñi kilifa yi nga xam ne ñoom la fi ku tedd ki bàyyi te it ñu war leen a yóbbu ndogu te mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima yëpp noonu lañ koy defee moo tax tey nañ ñëw fii ci yàlla dogal ñu fekk fi kii nga xam ne moo fi xalifaam mu Serigne Dame Fall Salihu yàlla na ko fi yàlla yàggal te mooy ko ak wér ñu fas yéene ànd ak ñoom liggéey bu am solo bu tedd bi ñu liggéey ci weeru koor wi mu togg ndogg yóbbu ci kii fi nekkal euh, Serigne Touba waaye yóbbu itam ci ñi nga xam ne ñooy njabootu Serigne Touba gi Eh, ñu ñëw nag ci waañ wi gis nga fekk nañ fi soxna yi tubarkaal ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ci eh, xam naa dañ ciy taalal kenn rek micro muy ki nga xam mooy jëriñu waañ wi su ko defee mu waxtaan ak ñun ci la waañ wi tëdde soxna Ndeye Fadou Fall di jëwriñu waañ wi ñu fekk ko fii kon si waañub eh, maam Saliou Fall waañub Serigne Ndam Fall Salihu lépp rek si ndog yi nga xamante ni tàmm ngeen tàmm ngeen bisu wala jagleel nañ leen bisu samedi bi ngir ngeen koy def di ko jébbal kon waa kër Serigne Touba yi masbillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi sant Serigne Touba Mbacke di sant maam Cheikh Rahim Fall di sant maam saali Fall borom Daaru Xafoor di sant nag Cheikh Ndaam Sali Fall di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te weer ci barkeb Serigne Touba barkeb Cheikh Sidi Makhtar bi nga xamante ni mooy xalifatul am ñoo ngi sant nag waa waañ wi ñoom ñëpp ndax ñoom ñëpp ndigal rek la ñuy wéyee ba ñu xëyee ba nëgëni si suqim ginaar ci lañ xëy ci lañ yendu ba nëgëni si saaf nañuy ginaar defar seen i pompe te defar seen i soos soble lépp defar nañ ko teg ko ne lépp jëmale ko na kër sëñ Touba ndogal daal a ngi jóge fii ci kër maam Sali Fall Daaru Xafoor fas yéenee jëm kër Cheikh Sidil Makhtar ndigal rek daal la ñuy xaar ndax taalibe yi moom wa bu sëñ bi nga balaa moo eggale lépp loo xamante ne nii luy bëgg-bëggam la rek luñ ca man lu nekk dinañ ko def dañuy yenu ay mbana yoo xamante ni sax kenn taalagu ko di ko indi addiya di yenu ay bool di ko indi di yenu saako pompité di indi di yenu saako soble di ko indi lépp nag ngir bëgg a jëf rek ci maam Saliou Fall ak sëñ daam mi nga xamante ni moom la yàlla dogal tey ji mu yenu yan bi ñu ñaan nag ci barke sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima sëriñ Saliou baayam yal na attan yan bi te yàgg fi lool ak ñun yàgg liggéeyal baayam bu tedd bi yàgg ko yàgg yur Cheikh Sidil Makhtar mais mooy mu yàgg fi lool tëwéer ñoo sant nag taalibe yi amuñu seen waaye seenu pay amuñu ko supeer bi jógee euh, kër maam Saalihu jëm si njabootu Serigne Touba Xaadim Rasoul gi mel na ni ñi koy togg yaa ko jiite. waaw super bi li tax ma jiite ko sono faa jëgg mooy caatum sëñ Saalihu Fall sëñ daam Saalihu mu fi nekk mooy baayam mooy sëriñam sëñ daam jël ko def ko jëwriñ soxna si nag dem ba magal mun a tuta taxaw taxawaayu togg supeer bi man mii doomam mu jox ma ko ma jiite ko maa ngi ñi ma àndal waaw loolu moo waral super bi waaw. moom bokkul ak fi ñuy toggee yeneen ndab yi. déedéet moom bokkul ak fi toggee yeneen ndab yi ndax super bi ca jamonoy sëñ du saaliw bañ ko commencé togg ak nëgë ni yi ci kër gu mag gi lañ koy toggee waaye naka jëkk super bi moom fii lañ koy toggee ci ruq bi du nekk ca waañ wu mag ba moo tax su ma ñëwee fii laay nekk man ak ñi ma àndal pour sellal ko daal. waaw. toggin gi nu muy demee. toggin gi day maanaam xam nga ñun dañ di taalibe yaakaar sëñ Bamba kon buñ ñu joxee super bi ñu war koo togg di koy it xalifab sëñ Bamba nu mu gën a selle gën a baaxe rek noonu lañ koy defee te bu ñu yokkee super bi ba ubbil leen ko ba ngeen xool ko di ngeen xam ne lii dafa jóge kër sëñ Saliou Fall jëm kër sëñ Bamba. الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى عبده وخضيمه شيخ ناصر أحمد بمبه رضوان الله تعالى عليه باقي الخديم بوكي طالبي تيتورو شيخ عبد الرحمن فال صالح نيوغي نيو بوكي طالبي ييب تاي جيتال سي نيو bàjjen soxna Fall jëgg ak magam soxna jee Fall lii nga xam ne moo ñu fi dajale tey muy wàllu togg ndogu yi mu doon loo xamante ne cosaan la ci yoonu murit rawati yoonu bay Fall ndax woor ba ngoon jot ñu jox la loo xam ne tàndarma la wala meew wala soow nga lekk walla nga naan ko mu fajal la ab xiif xëy na ci gis ca ka xiif sax doy na waar waaye yoolu tuyaaba jang am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne bu doon ci ab yool bu ñuy fay jabalu Uhud mu doji Uhud je na mu kawee yool ba moo gën a kowe lu mel noonu kon lépp loo xamante ne lu wàkk Serigne Touba def la wala wàkk Cheikh Ibra buñ ko dee seet ci wàllu di ko taarixal ak ko jëmmal am na fu mu tegu ci wàllu lislaam dañoo wax ne ci 1914 fekk booba Cheikh Ibra radiyallahu anhu di wayjuram moom mii ndax mook baayam sëñ Saal ñoo bokk ndey ak baay ne bi mu ñëwee nuyu si ki nga xam ne mooy Serigne Touba ridwanullahi alayhi taala al baqil xadim mu ne ko Ibra Fall saamam ne Cheikh Ibra wuyu mu ngi ànd ak mbooloo mu takkan ci njaareem booba Cees la jóge ñëw njaareem toxoogut ñëw njaareem nee na mu ne ko dama am gan gu màgg gu tedd gu yiiw gu ma fonk gu fonk ma bëgg nag bu ñëwee yaa ma ci doy ngir nga teeruleel ma ko gana leel ma ko àq yamu laaj yëpp nga joxal ma ko ko mam Cheikh deg lola bi mu toxuse ci njaareem lola mom la daldi feddi daldi na mag ñi ndax xam ngeen ko bax ku tedd ki lim jublu ci lim ma doon wax ne ñom serigne yaram daldi koy leral lam wax ne ko nangam ak nangam la wax ndax mom boobu bëggam serigne Touba ak agam ci serigne bi deme na fo xamantene ci walu sayir munu ko deglu di xam lam wax xana ca batine ne mu ne serigne Bamba ci wan wer lañ ne ñu ne ko baraxlu mu ne da melni suba de la wara nek sentu bu ñeuk te bu nekkee séntu mu njëkk ñaari fan lañ ciy teg wala ñett ñu mën a um koor gan gi mooy weeru koor noonu mu toll ci yàlla ak noonu màggee ci yàlla nga xam ne xëy na ñàkkoon a ñëw ak lislaam waaye yonent bu fi mës a ñëw gune am nga nuñ wàcce ci weeru koor xëy na anamu nañ daan woor a cooyee jamono ak ni islaam tërale woor moom moo bokkut waaye naka jekk koor moom dafa mës a am ndax bu al kutiba aleykum siyaamu kama kutiba ala lazina min loolu kon wane weeru koor yàgg naa mu ne kon koor googu lay wax ne mooy ganam lépp lu Serigne Touba daan def ci jaamu yàlla da ko cay yokk fonkeelam ci weer wi kawe na man mii nag la taamu nee na naa ko teralal ganam googu gungeel ko ko ànd ak moom def ci ay berne ak ay togg di ko jox bokki juuj ak bokki taalibe yi kon loolu moom mooy ndigal loo xamante moom la jëlee ci Serigne Touba. nee na nag bi nga xamante ne ñëw na njaareem foofu ci kër Cheikh Ibra te lu mu mës a def moog rakkam ju tedd ju baax Serigne Saliou dañ ci daan waxtaan. nee mu woo ko jottali ko ndigalul sëriñam boobu di seen sëriñ ñoom ñaar Seexu Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nee ca saasa maam Saliou la mu am ca ni nettalee ci ñenn mag ñu dégg ko ci ñoom daf ko daal di jël barkeele ko dëggale ko kàddu googe jox ko Seex Rafaal magam ju baax ji. mbokk yi sëñ Dame Fatou Saliou gis na leen gis na fi ñu teg sëñ Saliou te moom yaakaaram yëpp ci yàlla yonent sëñ Saliou rek la ko wékk kon ku mu bokkal yaakaar ku ne noo doxee mi ngi lay gis. mi ngi leen di sant ci doxin wi mi ngi leen di sant ci woote bi muy woote ngeen di ko wuy si gis na ni ngeen wuy see nee na mi ngi leen ciy gërëm a ah nee na itam fas naa yéene li fekk mi ngi fi toogal te toogal fi sëñ Saliou ak yéen lépp loo xam ne mi ngi yëngu ci kër sëñ Touba bala cay def dara dina ko waxtaan ak yéen diisoo ko ak yéen ba ngeen bokk ci moom kàddu ba teg ko fi ngeen ko war a teg mu ànd ko yéen. ay taalibe la nu faal. li mu wax doyna mom moom xamna yalla xamna naa yonent bi xamna ba nu àndee du tay lu ma wara defal rek bam togul defal nam ma ko jur jox ma jurna tudde ma jurna tudde sama ndey dom ju mu am mako ko tek ci biti te boobu li xewul kon lu ma wax deug la ñu kay ngi ñaan ku nu yokal suñu talibé suñu fan gudd ba noan ma rek moom rek noo ngi ñaan mu yokkal nu sunu taalibi taalibi gi daal la ñaan mu yokku jigéen ñii nga xam ne nag moom man bi ma ñëwee jóge njaareem fi laa leen fekk noo ngi ñaan ci dara ji sëriñ Saliou Fall saa borom yokk leen dimbale leen ba ñu mën di ñëw fu ñu toll ndax ña nga nee te xalaatuñu dara lu dul ndogu yi dem ci ci ci kanam sëñ daam rek kon nag jigéen ñi noo ngi leen di sant di sant sunu doom yi nu bokk ak baay baay te seen bàyyi jekkon fe ne nuy taxaw li no ngi sant dal di ñaan dal sa borom guddal fa ni man gi soxna Fall jegg mi di rakam di jeewriñam di talibem dañ yag lool neena lepp lu mi def mo ci and ak mom neena bobu suñu nopp euh, tay ak segul neena derbatam Badara Baro mi ngi koy gërëm lu baax a jàppale na ko bu baax a baax nee na jàppale gi mooy fonk ndeyam fonk fonk nijaayam ay wajuram gannaaw jaamu yàlla fonk sa waajur rekk fi ne moj topp kon nag baax na jërëjëf sëñ Modou Anta mii moom la fekkoon nag sëñ Abdou Fall mi nga xam ne moom la wuutu yàlla yàlla dool leeram taas ci barke mu daan yóbbu ndogu yi te it moo fi nekkaat ndax nee na lu mu fi fekk dara yàquwu ca nee na da ko da ko yokk kon sëñ Modou ndogu yaa ngoog taalibe yaa ngoog yóbbu leen ci jàmm indiwaat leen ci jàmm